gis nañ avocat Ousmane Sonko yi bu ñu jëlee par exemple maître Ciré Clédor Ly bind na benn lettre bi bind ko ministre de l'intérieur ci ñoom accès bu ñu amul au niveau de kër Ousmane Sonko ñu gis aussi beneen avocat Juan Branco bu nekk au niveau de France gis nga sortie bu mu def tey. Mhm. Euh, gis nga nan nga jàngatee euh, taxawaay bi mu am. waaw xam nga dëkk dafa am ay piliers yu ko téye ñoom sax ñu ñu jox ñu ay leçon état démocratie république ñoom ñi yor état bi ñoom ñooy ñoom ñooy nasaxal bànqaas yooyu noonu. Mhm. parce que réew ci ñetti pilier lañ ko tabax ci ñun nit ñu jàng fii réew mi. exécutif législatif judiciaire. Mhm. réew mi mës nga fi gis benn enquête bu ñuy yëkkati jëmmale ko ci waa kër Macky am na ku bokk ci Macky Sall taxaw toog ci télé wax ne Ousmane Sonko dañ ko war a rey procureur dégg nga mu woo ko am na ku bokk foofu taxaw ne xam na Fulbert sambu ak ñeneen ñi xam nañ ni dañ leen rey procureur woowu ko de Fadilou Keita mi bind joxe xalaatam ñu woo ko gis nga fi mu Moustapha Diakhaté toog fii ci tele wax li muy wax ñëpp dégg député noonu Aliou Dembourou Sow noonu mais nag il y toujours une justice quand il des opposants des des journalistes ou des activistes ñooñu moom am na justice pour ñooñu mais pour waa Kër Macky Sall toogal ci télé waxal lu la neex defal lu la neex kenn du la topp. loolu moo tax ngeen engagé avocat. bu nekk léegi nag réew suñu demee ba bànkaas parce que justice alalu en fait li ñu naan dëgg alalu yàlla la dëgg fu fu mu amul foofu du mën a jàkk parce que chaque jour ma joxe exemple nee naa leen. yàlla yonent yi muy yónni sax c'était pour rétablir la vérité pour organiser la société te nag organiser ko ci dëgg pas ci teyu bakkan pas ci xalaat sama xalaat sama gis non yàlla da la imposer donc dëgg alalu yàlla la jëng fuñ ko foyee stabilité du fa am jàmm du fa am mais Sénégal dañuy foyee dëgg Sénégal ngay gis nee naa la quatorze doomu sénégalais ñu rey leen pendant deux ans. gisoo ci benn enquête pas de coupable pas de complice rien comme si dara xewu fii te pourtant ñooñu te boo jëlee ki gën a mag ci maanaam ci ñi ñàkkoon seen bakkan en 2000 euh, vingt 2021 ki ci mag xam nga ñaata la am 22 mm-hmm. ans ce qui veut dire c'était un jeune qui avait l'avenir devant lui mm-hmm. xam nga leen moo waroon nekk taxawaayu justice pas nga ñu ñëw topp fii leen Macky sàll di jaarale ñu jaar fa mais wax ko ne ko Sénégal fii ñu benn bakkanu nit moo bakkanu ñëpp a tolloo benn bakkan bu fi rot dinañ ko enquête xool lan moo ci taxawaay ñu ko def. mais ñu jël daan teg la mais comme nag loolu mënul am Sénégal fa ñëw. Mhm. ku mënul am Sénégal. Sénégal ñuy rey 14 nit mënul am enquête dara famille victime yi ba tey ñu ngi ciy topp. Amnesty International Amnesty National Sénégal jël dossier yi en charge mënuñu am gain de cause soo demee nag. ba yow dëkk ba nga dëkk yoon na mu waroon taxawee ci yu mel nii taxawee wu ko même yoon boobu may na la nga mën a xool yeneen tribunal parce que on parle de CPI y a pas que la CPI. Mm-hmm. y a ce qu'on appelle des pays qui ont des juridictions à compétence internationale France am na ko Allemagne am na ko Belgique am na ko. Euh, dama lay jox kaawu doomu euh, Obiangema président Guinée équatoriale. Mhm. justice bi ko condamné ba nangu ay biens fu mu nekk c'est en France c'était c'était le le le fameux procès des des des mal acquis ñu condamné ko jël alalam te pourtant euh, comment dirais-je équato guinéen la tribunal équa en fait équato guinéen jugé wu ko moo lay wan dafa am lu ñu tuddee en fait. on parle de la CPI parce que CPI am na man ndax de ñii di wax nii nii nii ñëpp. tiit doo nga leen jàpp moo tax ñuy wax ndax soo demee euh, statut en fait euh, le constitutif de la CPI soo demee euh, comment dirais-je article 15 wax nañ la procureur pourquoi mu mën a jóg topp ñi nga Branco dossier yi mu jox procureur tey. Mm-hmm. moom su analyser gis ni lii ay firnde la. te wóor na ko am na mën na ubbi enquête préliminaire topp dossier yi même bu dul ces pays mën nañ dem ti beneen dëkk boo xam te boo am juridiction compétence internationale ñu topp fa Sénégal yéen yéen waa ñii ñu dugal nii yéen waa Pastef daa mel ni instant seen yaakaar yëpp ci. non du question non branco lu ngeen ko teg léegi. déedéet loolu c'est vraiment être vraiment xeetu euh, ñagasal ñaawal li ñuy liggéey la. xaaral ma ñëw comme comme fii nii au niveau. fii nii demul moom tey dégg nga dem au niveau de l'Europe. waaw mais loolu. sañ-sañ yu la textes internationaux yi may daa ce qu'on appelle des instruments internationaux. kon seen yaakaar tegu na ci. waaw mais attends nee naa dama la jox exemple. doomu Obiang ma. dégg naa la bu baax mais xam nga ni suñ suñ ko mënoon àttee suñu mënoon àttee dëkkam kon duñ ko duñ def procès boobu France ba mën a nangu ay biens yoo xamante ni dañu njorti ni daf ko jëlee ci alalu euh, Guinée équatoriale pour moomale ko boppam aloo ko askan wee ko moom. ñu fas yéene ko jël de de delloo leen ko donc ce sont des instruments internationaux yoo xamante ni c'est donné à tout individu de pouvoir saisir la CPI wala nga amaat avocat feneen mu jël dossier bi dugal ko beneen dëkk Hissène Habré fu ñu ko jugé du Sénégal Sénégal lañ jugé Hissène Habré mhm. fu mu defee crime yi ñu ko toppee tout ça fu mu ko defee du Tchad. ñoo lay déglu waaw parce que xam nañ ni procès boobu mënuñu ko defee Tchad parce que suñ ko waree def Sénégal. et d'ailleurs euh, Juan Branco la la mentionné ñi nga xam ni ñoo war àtte yoon mais ñooñu la ñuy tudd ci dossier yi donc la justice ñii nii nii mais ils peuvent pas organiser un procès fair des enquêtes yoo xam te ni parce que les enquêtes je rappelle que l'ONU mais loolu yëpp bu ñu ko jëlee la commission des droits de l'homme de l'ONU a demander des enquêtes indépendantes xam nga luy enquête indépendante mooy ñi nga xam ni dañ leen soupçonné que ñi dañu am lu ñu laalee ci mbir yi waruñu bokk ci enquêtes yi donc soo demee ces yoon na mën nga dem ci beneen dëkk et je pense que attendez ah yeneen jours yi di ñëw di ngeen dégg yeneen affaire y a pas que la CPI parce que li xew moo mënul continuer ñu fi toog ay doomu sénégalais ñu leen jàpp di leen boom parce que lan da nga bëgg a toog ci nguur gi parce que lan jàpp nga ni yow bëggoo opposant parce que lii parce que lii tu trouves normal yow dans en pays ay nit yu yor ay arme de guerre di tirer ci ay manifestants après dara du xew mais loolu du Sénégal gi te Juan Branco c'est pas bu ñu nee ñu Juan Branco lañ yaakaar mais non c'est un avocat qui a fait un travail remarquable mais il a été honnête de dire que liggéey bii moom kese defu ko il y a en vingt-neuf autres vingt-neuf autres avocats te suñu demaat ci yeneen dëkk yi. national bien non international internationaux des avocats nationaux internationaux peut moom lañ ciy gis. mais moom tey wax na ko ci conférence de presse am ku ci mel ni maître Khoureychi Ba nekk na nit koo xam te ni taxawaayam ci affaire droit de l'homme même ak ak taxawaayam ci liggéey expérience bi mu am ci CPI mais xëy na groupe boo gis dina am koo xam ne ku ci nekk yaay yaa am benn rôle boo boo ci joué bu ñu demee do bu ñu bu ñu introduire dossier euh, crime contre l'humanité yi ci beneen dëkk mais mën na nekk beneen avocat mën na nekk ñeneen ak ñeneen